fi nu daje tey euh, dañuy yàgg a dox depuis 2016 sept ans di informer di sensibiliser ci nécessité mën a boole délégué yëpp ñu yëkkatandoo ñu ñu euh, terandoo loolooy tey moo waral tey daje bi euh, ci la ñu profiter aussi pour matérialiser teg bureau national boobu mënul am jafe-jafe ndax du bureau de cooptation ni bureau euh, bureau bi nekkul ne ñi ko ñi ko composé xamante wuñu xamante nañu ko baax def nañu juróom-ñaari at di dox di sillonné di sensibiliser di informer ndax ñëpp xam que tey délégué Sénégal su manqué ci fonctionnement état dafa am luy manqué dañ ko def Kaolack ren daje bi xam nga ñun dañu mas a liggéey ci équité looloo waral ñu loger ko au centre ci digg Sénégal pour permettre ñëpp ñëw pour permettre ñëpp bokk pour permettre ñëpp dessiner do délégué c'est le prolongement mooy représenter maire ci ci ci quartier am ndax looloo indi définition relais du maire donc ñun suñu toogaay loolu su amul prise en charge su amul yéegoo suñu diggante ak ki nekk suñu premier patron y' a problème.